Euh, Sidi Diop aussi nekkoon invité Africa 24. voilà Africa 24 euh, mhm. c'est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique muy euh, quand même benn chaîne de télévision bu mag a mag bi nga xam ne ñoom ñoo invité woon ki nga xam ne rek moom mooy Sidi Diop ginnaaw bi mu demee foofee ca Bercy ca France ca noonee lañ ko invité ci télévision boobee ca noonee sax la defee woon ay révélation yu am solo. ñu mhm. gis benn Sidi Diop bu mature benn Sidi Diop boo xamante ne quand mën nañu xaw wax ni que bon c'est un artiste boo xamante ne actuellement mun nañu wax ni que artiste bu bu bu complet la parce que euh, Sidi Diop bi nga xam ne gisoon nañ ko deux ans ci ginnaaw ak Sidi Diop bi on peut même dire ne différence am na mais aussi mën nañu wax ni que artist la boo xamante ne vraiment mën nañu wax ni que international la parce que Sidi Diop euh, gis nañu ko ginnaaw bi mu def amee euh, opportunité wu dem ci télévision boobee ci la defee ay révélation yu am solo tout temps s'exprimant ci mm-hmm. manière boo xamante ne sénégalais yi rafetlu nañ ko quand même muy euh, exprimer wu en français d'une manière boo xam ne sénégalais yi xaaruñ ko woon ci noonu aussi la defee ay révélation euh, di wax bu baax a baax wala bokk di ñëwaat ci la fekk muy bàyyi xel bu baax a baax papaam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci musique sénégalaise ku ci mel ni mm-hmm. euh, Youssou Ndour ak ki nga xam ne moom mooy Baba Maal Ismaël Lo ak ki nga xam ne rek moom mooy pap Diouf mi nga xam ne mi nga xam ne ni que référence la ci noonu aussi moom Sidi Diop la ñëwee ba annoncé li nga xam ne sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar bi nga xam ne mi ngi koy euh, war a génnee rek le euh, voilà au mois de décembre di mhm. album euh, douze titres bi nga xam ne ci diir bi nga ko liggéey tool na ci un an et demi muy quand même liggéey bu am solo bi nga xam ne bon ñu bëri ñu ngi doon xaar si Sidi Diop mu ñëw aussi présenter Sénégalais son deuxième album qui va sortir bientôt ci mois de décembre mais aussi ci noonee tamit la defee benn annonce boo xamante ne mhm. Sénégalais yëpp ñu ñu ngi koy xaar parce ku ne Euh, xam na ni que Sidi Diop même bu fekkee ne mi ngi bégal sénégalais fii bu baax a baax ñu bëri ñu ngi doon xaar di Diop mu dem ci saal yu mag yi nga xam ne ñu ngi nekk foofee ca euh, bitim réew euh, ci noonee aussi la annoncé que ni le 29 juin 2024 mi ngi jox ñëpp fi nga xam ne rek moom mooy ci Zénith. Mm-hmm. rendez-vous donc muy quand même mbir boo xamante ne sénégalais yi xaar nañ ko bu baax a baax muy liggéeyu Makhtar Diop Sobatel on espère bien que ne sénégalais yi dinañ ko accompagner bu baax a ngi mm-hmm. gunge Sidi Diop ngir rek mu dem ci jàmm jaar fi artiste yi di jaar mu amati ndam comme ni ko artiste sénégalais yu bëri defee woon ci foofee ca Zénith de mm-hmm. Paris parce que Wally woote woon na fa Euh, mhm. Viviane woote na fa Pape mhm. Diouf woote na fa mhm. donc mu nekk réussir donc li nga wax rek mi ñaan sénégalais yi ñu dem ñu accompagner ko une fois de plus musique Sénégal moo ciy amaat ndam rek Sidi ñu lay félicité waat bu baax a baax di la di la encourager di la wax ne yoon bi nga teg sa tànk foofu la mbir yi moom góorgóorlu rek la persévérance donc yàlla may la li nga xamante ne moom nga soxla ci musique sénégalaise incha allah abi loolu la ñu indi woon te ci suñu actu people bu